Alhamdulillah TV, la chaîne des valeurs et des vertus. ginnaw bi nu sant yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ngi naanal khalifa général yëpp sun borom may len gudd fan may len wér waye nak di ci jiital sëñ Muntaxa Mbàkke suñu borom may ko gudd fan may ko wér waaye noonu lañ koy ñaanale sëriñ Maysa Mansour ak bépp xalifa bu ne ci Sénégal ak fu dul Sénégal ñu ngi ñaan bu baax baax sëriñ Madiop Samb xalifa sëriñ Aïssa Samb suñu borom bàyyi fi yàggal ko ci kanamu njaboot gi mu gudd fan wér barke alquranul karim yéen ñu ko doon laaj nag indil nañ leen ko mooy sunu métier sunu métier nag suñ ko waxee mooy bépp métier rek moo xam da ngay peintre oto moo xam da ngay def téer moo xam da ngay def soudeur moo xam da ngay def def menuisier bois bépp métier rek tey nag ñu ñëwoon fii nag ci table woon seet si nag ñi nga xam ne dañuy peintre oto ko xam peintre oto nag xam ne métier mu métti la métier mu difficile la tey nag du ñu def rek lu dul jabel nga topp ma ñu daal di dugg ci garage bi di fi fekk Serigne Saliou rabbi bima yasra aleykum mbokk internet yi. waaw Seydina Jibril tey nag fii lañ ñëwoon ci caaro yi macha allah ci table Tivaouane seet fi nag koo xam ne wax dëgg fa la di ndaw waaye en même temps di ko fonk liggéey di ko bëgg liggéey ñu fekk nag muy def métier mu jafe nag muy peintre oto kon nag seen émission. Dóor waar seen émission seen métier tey nag ñëw na fii ci table Tivaouane fekk si fi sëñ Saliou waaye nag émission bi nag ñu ngi leen koy amale ci seen site bu mag boobu di Alhamdulilah TV kon nag Baye Sall ginnaaw bi ma la nuyoo dama lay bàyyi rek nga nuyoo. waaw ah, asalaamaaleykum yéen waa am Alhamdulilah TV ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar suñu jëwriñ ji nga xam ne moom tamit sunu xamee yàgg na lool wax dëgg yàlla. Mm-hmm. waaw bi ñu ko xamee tamit ku ku ku ku jub rek. Mhm. waaw kon bu ñu fekk see fii di ñu defal émission tamit. Mhm. Ah, dañ koy nungul rek. Mhm. waaw sañu ñu koo bañal. ah macha allah ku dégg kàddu yi nag xam ne nuyoo na nuyoo bu am solo waaye Baye Zale tey bu ñu bëggoon a xam kan mooy Baye Zale ci tënk loo ñuy wax. waaw Baye Zale moom benn taalibe la nii rek. waaw xam nga moom boo nee Baye Zale rek tënk na lépp. waaw ndax taalibe moom moom rek la ñuy doon métier mi. dañ cee nekk waaye tamit moom ci lu mën di ne taalibe rek la ñuy doom daal. Mhm, léegi nag bu ñu bëggoon a xam nag ñan ñooy say waajur ak fan nga cosaanoo ak lan moo la indi fii. waaw man béréb bii ngeen ma fekk. Mhm. daanaka ci koñ bii fi laa juddoo. Mhm. waaye sama cosaan dëgg nag moom bawal la. bawal waaw. samay waajur. sama yaay Ami fay la tudd. sam papa Mouhamadou Sey. waaw ñooñu moom ñooy samay waajur ñoo ma yar tamit tette ma tamit bi ma daanaka bi ma juddoo ba léegi bi ma xàmmee. sama carrière bépp ci lii laa ko def. waaw foowu ma si kiiwu ma ci daal. sama carrière bépp ci laa ko def daal. waaw macha allah Jabel mu mel na nag lu mel ni dafa jafe gis ndaw loo xam ne dafay gëm boppam nangoo investir ci réewam waa métier bi nii yow lan moo lu ci dugal. waaw métier bi moom li ma ci dugal mooy damaa nekkoon benn jeune rek ne ci koñ bi xam nga di toogandoo comme nii ma xam dem ba xam ne amul njariñ mhm. ma dem dem dem sàkku ji ko. Mhm. def ko nag mu yàgg torop metti mais teewul dama dama damaa jàpp ne rek man lii may def nii ci laa war a yor sama njaboot yor si samay waajur après nag ma dem def ko concentré wu ci yàgg naa ci torop nag mhm. yàgg naa ko lu mat fukki at est-ce que ci métier mi rek moom nga moom moom nga tàmbali est-ce que moom nga njëkk a def wala moom rek moom nga mas def bi nga xam nga nit ki bu juddoo taamu noonu mu dem jàng alxuraan wala mu dem jàng français est-ce que yooyu am nga boo ci def waaw alxuraan moom jàngi woon naa ko mhm. waaw jàng naa alxuraan mhm. waaye soriwuma si lol mhm. waaye teewul nag ma nekkuma koo xam ne tamit damaa yaafus ci lenn li waaw moom lu dul diine moom daanaka gëm naa ne du ma ko dox moom ah, waaw macha allah macha allah est-ce que xam-xam bii ni mën nañu xam kat moo la ko jàngal xam-xam bii gi ma jangal baban Baba Ndiaye la tudd. ñoo bokkoon fii koñ tamit. waaw ma judd si kanamam don ko gis mu koy defi. après affaire bi dem ba neex ma. fekk booba jóge na ci arab bi ma don jànge ma xam ne bi amul jaring. comme que ndaw moom li ko war rek mooy liggéey. ma dem ne ca ba yàlla ñëw tey. waaw est-ce que bokk nga ci ñi nga dañuy xaar nag ban yeewu leen nekk ak seen patron mu liggéey ak moom ba keroog mu leen di yeewi. waaw man moom sama patron wax ba nii fu ñu daje damay siggi xool ko. ndeysaan macha allah waaw amuma moom benn jafe-jafe. Mhm. waaw yi saay dañuy daje ci fi may liggéeyee bu ñu demee bu may peintre dañuy daje. Mhm. di saafonte séq jàmm daal moom amuñu benn jafe-jafe maag moom. waaw ah, macha allah boo gisee sax ma laaj la loolu dafa fekk teg jamono ji dañoo gis ndaw ñu bari ñoo xam ne ñoom dañuy cuuc capp daal jàpp ñu benn métier wala métier mu nekk sax dañuy gaaw a beru lool ba métier ma du mokk est ce que bokkoo ci ñooñu. déedéet man bokkuma ci ndax man lii jàng naa ko fukki at xam nga loo def at moom. Mhm. Nekul lo xamni ni dang ko faratu koo mhm. def na ci fukki at yo xamantene mhm. musuma baye sama patron bi ma nek dem nek ci benen ah, patron. ma sha allah sha allah ci kooku rek la mos nek ma sha allah ku deg lol nak Jabel nga xamni ni sha allah wax lu am am solo. Mhm. waye nag limay may laaj foofu rek metti mi yan coono nga ci jankontel non coono yi mom bari na mom coono yi mom bari na. parce que pareen saa yi client jox la auto nga bëgg mu rafet. nga ne ci di sonu temps bi. ta xam nga. liggéey moom bu la si nit ñi yaakaaree rek. Mhm. da ngay góorgóorlu bu baax ba nga xam ne li la nit ñi yaakaare mhm. dañ koy gis ci yow mais moom coono yi moom bari na mais tamit luñ bëgg la faaw ñu def ko. mosoo peinture benn oto nag ñëw borom daan ne la bëgguma ko woon nii. mosuta moom. Ah, macha allah loolu moom mosuta am. Mhm. moom ku wax dëgg yàlla euh, danay da nga da nga ciy bëgg lool ndax liggéey bi yéene ji man moo ma moo ma ëppal doole dama dama ciy am yéene ba nga xam ne. ku ci ñëw ci man rek. duma bëgg nga mer ba faral na sax li ci ëpp. client bu ñëwee bu waxee dama na ko bayil rek ma liggéey après nga gis. macha allah macha allah ah. euh, ku wax nag jamono ji nak wax mbass mi. ñi eh. ñaan suñu borom jël ko ci Sénégal ak fuddu Sénégal barké alxuraan waye nak mbass mi bim mu ci réew meeg légui nak liggéey bi dafa wañ ko wala dafa yok waaw mbass mi mom amul lum laalul mom mhm. amul lum laalul waye nak tamit ñi ngi sante yalla parce que. mbas meeg lu doomul mbass mi mom du té li nga xamantene mom nga wara jot rek. Mhm. da nga ci jot ñun comme li suñ Tuubaa daan wax rek tawakaltu alal laay suñuy mbir moom daanaka. Mhm. lépp ci yàlla lañ ko wékk ndax boo xoolee am na ay ay ay ay ay loo xamante ne. Mhm. Euh, yàlla suñ borom rek moo la ko mënal. Mhm. waaw mais mais mais du doomu aadama. moo tax daanaka ñun moom suñ mbir yëpp. ci yàlla suñ borom lañ ko wékk. moom lu mu dogal ci ñun rek. loolu moom lu ñu neex la mënuñu koo bañ. macha allah macha allah <laughs> waaye nag kon wax dëgg fa la dégg noonu moo xam rek da ngay xam ne ku wakkarlu ci yàlla lan kon moo def loolu ci yow booy wax da nga ciy sentir ne kii ku wakkarlu la ci yàlla. waaw loolu moom. Mhm. ci samay waajur la rek ak fi ma mhm. juddoo. Mhm. ak tamit judd ci ëtt bi nga xamante ne. ëttu murit la. waaw yow am na loo ci xam ne. duñ la ko leer ndax yow moom. fekk nga ci ñu lu bëree bëri. macha allah waaw kon daanaka loolu rek moo tax moom. Euh, lépp lu noo xam ne nii ñu ngi koy jëf rek. dañ ciy jiital yàlla ndax xam nañ ne lu yàlla jiituwul rek. daanaka loolu da nga koy ñàkk. ah macha allah macha allah waaye nag fii nii ci liggéey bi. ndax dafa am ñoo koy àndal wala yow kese yaay yaay seq liggéey bi. déedéet am naa ñu ma koy àndal. ndax. am naa fi benn patron boo xam ne da ngeen a fekk mu jàpp mooy Maodo. Mhm. kooku maak moom tamit depuis bi ma jógee sama patron. Mhm. depuis boobu ba léegi maak moom ñoo nekk. Mhm. waaw ma nekk ci tamit sama yeneen ñoo xam ne tamit fi ma féete. mën naa ne tey nit féetewu ma foofu. muy ñii nga fi fekk nii Ibou. Baye Assane Omar Fall. ak Bas Mële. ak euh, Pam Maguette. ñun ñoo nekk ci garage bi nekk équipe bi. mais tamit di équipe boo xam ne tamit euh, ñu ñu gëm liggéey leen ñun ñëpp nag. moom gisuma ci koo xam ne moom day tirise mbaa muy tox mbaa muy naan déedéet. Ah, macha allah liggéey rek xëy heure. wàcce heure ah macha allah loolu nag bu yéen ñëpp defee ni yéen nag wax dëgg fa la Sénégal dana dox parce que dañoo gis jamono ji ndaw yu bari di dem ci géej gi di fa faatu te mu nekk rek loolu loolu lan nga ci ban message nga ci jàllale waaw loolu Euh, comme li ñuy wax naan mënuñu koo wax ne gëm sa bopp la mënuñu koo wax ñàkk gëm sa bopp la ndax xam nañ ne loo xam ne danga ciy sóobu di xalaat ndax di nga ci jàll wala doo ci jàll daa mel ni sóobu ci li nga xam ne moom danga nga ciy jàll moo gën a moo gën a wóor loolu mhm. kon ñu fexe rek ñu nu tooge suñu réew mhm. liggéey am-am moom comme li may wax rek lépp ci loxo yàlla suñ borom la ne mën ngaa dem ba foofa tamit. te doo fa tekkee. Mhm. nga ne fii tamit tekkee fi. Mhm. kon nan nan gëm suñ suñu bopp gëm suñu réew. ah macha allah yàlla dogal ci ñun rek ñu xam ne loolu. ah macha allah ndaw yi nag yéen ko dégg kon nag toog gëm sa réew lu ama am solo la kon nag jabel du ñu def rek lu dul nga jëlal ñu ñëpp rek ñu mën leen a jàll bu baax a baax baax ndax ku fi gis tamit xam ne ay jeunes ñoo fi nekk ay jeunes ñoo fi di liggéey waaw ba mbas mi duggee nag danoo gis état bi def ay ndimbal ah. jëmale ko ci ñëpp mhm. képp ku yore métier. Mhm. est-ce que yéen boole nañ leen ci yéen ñi nga xam ne ngeen di peintre oto. waaw ñun moom ouvrier Sénégal daanaka boo xoolee gouvernement moom. Mhm. saa bu ñu wanee ci yu mel nii rek. Mhm. xëy na yéen sax waaye bu ñu wanee ci yu mel nii dañu fii jëlee wala dara gouvernement moom. côté boobu moom. jàpp ji ci ay jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci. peuple bi ñuy liggéeyee. est du kon loolu moo tax sax jeunes yi di dem ci ci ci ci géej gi. loolu tamit lu a nekk la. parce que dañuy gis fan ay yëkkati yu bari da ngay nekk fii loolu lan moo ko indi wala mhm. moom kenn weranteew ko. Mhm. parce que boo xoolee tey nit koo xam ne depuis dix ans mi ngi ci métier. Mhm. bàyyiwu ko. kooku bëgg naa liggéey. wante tamit bu fekkee ne jàppale wuñu comme ni nu war a jàppalee comme. Mhm. ni ñu jàppalee élèves yi bu ñu amee problème ñu taxaw ci. Mhm. étudiants yi bu ñu amee problème ñu taxaw ci mais ouvrier Sénégal ngay xool. Mhm. xoolal saa boo leen wanee tele dañ leen di jëlee fi ñu kon te te ñun. boo xoolee personnel bi ñuy yor. parce que moom la école yor. waaw parce que bat bi ma fi duggee gis naa fay ñu bare bare bare ñoo xam ne est ce que ñooñu yow yaa leen jox añ jox leen reer jox leen ndékk ak en même temps bu ñu waree dem ñibbi seen kër war a paas bi transport bi loolu tamit nan koy dunde ak dëkk bi ni mu méttee. waaw loolu moom ni ñu koy dundee mooy. yenn saa yi ñoom ñu xam ne ñun ñëpp liggéey leen bëgg. Mhm. suñ foree dara. Mhm. dañ koy bok mhm. li nga xamne mom lañ ci man suñu kem katan mhm. ñu def ko ci ñom donte ne. Mhm. say moyen dula may nga matal seen bëgg-bëgg bëpp wante nak li nga xamne mom mom mom mom mo ci yel ah mom dinañ ko xol yëkëti ko. jox leen ko. yi say ñu comprendre ñu ci. mosuñu ñu ñi ci baña comprendre mom ah, liggéey bi mom ndaw yi ci andal mom su ñu amee dañuy liggéey. Mhm. suñu amul dañuy liggéey. moom moom côté boobu moom mosuma cee am problème ak ñoom. macha allah macha allah ah Jabel ku dégg ni ma waxee da ngay xam ni ndaw la waaye nag ndaw lu am fulla ak fayda la waaye ndaw tamit lu gëm boppam la waaye nag ñu gis ne fii yëkkati boobu ñu leen di yëkkati lan moo koy sabab. waaw li koy sabab rek mooy dañuy bëgg liggéey. te pareen saa yi ku nekk xam na ni ouvrier. Mhm. dafa bari ay coona mhm. bari bruit. te yooyu yenn saa yi ne ci koñ koñ bi duñ occupé dara sax ci lool ci fin lay jëlee mm-hmm. mais nan la fa jëlee rek mm-hmm. orka pour manam fofu leer rafet lolu defena amul njariñ kay bàyyi ben espace mu leer am njariñ rek lolu fan yi gis nañ lu mel noonu jabel ñu yëkëti ay ñu doon défar ay auto mhm. ci fi rek fu fu ci passu charo rek leen lolu yeen bi ngeen ko yëgé lolu yeen nan la def seen xol parce que tamit ko wax peinture auto tamit da nga wax mécanicien waaw nakar lu ko rek parce que tamit euh, ci ñun ñëpp la ñun ñëpp la parce que ñun ñëpp ay tëni la ni sol doom ay ouvrier doom ay mbokk mhm. fi melni bo boo fi fo taxaw wala ci seigne salim mhm. peinture kat dañ la koy wax yeneen garage tay yeneen mécanicien bo ma si laaj tamit. Mm-hmm. dama la koy wax parce que. Mm-hmm. loolu mun mënut a def lu dul naqari ñu parce que buñ boo xoolee bayaal bi ñi nga xam ne fa lañ leen jëlee. Mm-hmm. koñ bi ñoo leen fa jëlee. man ci koñ bi laa juddoo fi laa gisuma ne dinañ fa def leneen à peu loo xam ne. lu raw lu raw ñooñu daan doole bi doon daan doole foofu di di di sal foofu dinaa la fa dolli tuuti sax dañoo gis yéen seen métier mm. lim mën a dundal dafa bari parce que tey ji fii nga nekk nii di peinture mm. ci kanam jaaykatu añ bi dana fi gis boppam ah, waaye kii jaay crème mm. ki nga xam ne day wut dépasse sax te yaakaar ko ci yéen parce que tamit ku wax euh, ouvrier yàgg gis ay mag ñëw di leen ñaan dépasse nga xam ne tamit yéen seen liggéey kon dafa am solo am solo boo xam ne li muy indiwaat ci réew mi kii jaay beñe kii jaay gerte caaf kii jaay café Touba waaye léegi perte boobu ñuy jur loolu noo koy mën a gisee yow ah waaw boo xoolee daanaka ñoom ñu dëkk ci koñ bi. ñoo koy teg seen bopp parce que ñun boo xoolee ñun ci koñ bi fi leen juddoo fii leen leen koy defee. te en tamit fii leen takkee soxna. kon ci koñ bi lan bokk. mais loolu soo xoolee li koy waral. li ci au passage sax ñu ngi nuyu soxna si bu baax a baax a baax sunu aaw bu ñëwul boobu xam naa ne Saliou bi nga tuddee. waaw soxna si damaa gis gare ah non waaw waaw moom <laughs> kii la ah, ah, uh-huh. kon nga xam ne kon bañaluñ leen. dara tamit jubluwunu tamit ngir di leen sonal wala dara xëy na liggéey moo demee noonu benn côté beet mën na noo liggéey ci koñ bi ñu comprendre nu beneen côté bi mën na noo bañ a comprendre est-ce que yéen yëkkati bi ñu leen di yëkkati tamit est defoo leen ci dara parce que dégg naa yéen tamit ngeen a ay bruit de fu ngeen nekk coow lu fii ah, kenn <laughs> dégg oto yi poussière bi yéen tamit loolu est-ce que yéen tamit amoo leen ci part de responsabilité waaw am nañ ci part de responsabilité mhm. que ñun boo xoolee yàgg nañ fii torop mhm. waaw paren saa ñu ñëw ci ay occupation voie publique. Mhm. ba tax na sax bi demee ba xam ne yenn saa yi oto yi nii am du xaj foofu. Mhm. danoo fexe nun daane suñ doole tamit fexe jël fii. Mhm. nga xam ne suñu yenn oto yi dinañ fi mën a dugg. ñu mën fee liggéey te duñ leen déranger chaque jour ñu ngi leen di sóor mais. xam nga ñi nga xam ne ñoom nga bokkal ay kër sax bokk benn koñ. far force par yenn ci diggante bi ay àq da ciy am. waaye loolu tamit. da da ngeen di comprendre rante rek yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk. Mhm. bu ngeen ko defee rek du am jafe-jafe parce que ñun tamit du nit ñu bon. ay nit ñu baax lan. Mhm. ñoom ñu fekk see tamit ay nit ñu baax lan. Mhm. ñu ci ñu ñoo ñu war na jàppale ñu war leen a jàppale. ah macha allah macha allah ah, ku dégg hommage boobu nag xam ne am na solo lool xam na ne nag léeg-léeg ñoom tamit du ñàkk tamit ay erreur am ay njuumte waaye nag buñ ko muñalantee rek danañ mën a dëkk danañ mën a nekk si jàmm parce que tamit nag dëgg nit ñuy dëkkee force lorante di ci am waaye nag lorante boobu nag wax dëgg fa la du wàññi dara nañ leen koy jéggal bu baax a baax a baax Saliou foofu tamit daan la est am na waaw ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax moom. ñoo ngi ciy sant yàlla bu baax ndax euh, duñ tàllal kenn suñu loxo daal. macha allah macha tàllal kenn suñu loxo luñ ci am rek doy nañu dinañ ko dundee. Mhm. te amin bu leew. Mhm. tamit wax dëgg yàlla. Mhm. bokk ak ñi nga xam ne ñoom laa nekkal ci garage bi. ñoom it ñu may ñu may jàppale ci bépp côté moom loolu moom du ma ko taayeel di ko wax. waaw ñu may jàppale ci benn côté bépp côté parce que boo xoolee. tey boo leen jëloon nii da nga xam ne maak ñoom ay morom lan waaye teewul. Euh, bu ñu duggee ci garage bi daal am na am dañu wane daal yow yaay kilifa gi. mooy moom mooy loolu waaw. Mhm. seen yéene daal tamit ci man tamit côté boobu tamit faaw wax ci bu baax a baax. Mhm. ndax damaa gis cër bi ma jox. Mhm. respecté ma waaw te bu leen neexoon tamit. ñu def comme ñeneen ñi rek. waaw macha allah suñ patron bi fi nekkal tamit. nekk nit koo xam ne tamit moom it ku ñu jàppale la tamit. wax dëgg yàlla ci suñ suñ suñ lépp. waaw tey fuñ mën di toll tamit loxo ma ngi ci biir. macha allah moom bu ci ëpp. waaw parce que biñ doomee tuut tànk ba léegi ñi ngi ci moom ñu nekk waaw di muy def tôlier ñuy def peintre mais teewul ba tey si jàmm la nekk parce que. Ah, kon yow foofu Saliou bu ma déggee bu ma ko déggee noonu ni nga waxee kon fii am na kuy def tôlier mais tamit am na kuy def peintre. waaw garage bi ñaari patron fi am am na peintre am ma na tôlier. mais suñ tôlier bi dafa xaw a jàpp nag moo tax. Mhm. mënu leen koo kii mais rakkaman fi après da ngeen ko interroger bu soobee yàlla. incha allah mais est nag métier mi yaa ngi ci gis sa bopp parce que tamit dañoo gis métier yi bari fii ñuy xëy di wàcc di xëy di wàcc mais du ñu am dara parce que tey jii da ngay dem ci koo xam ne boo ko seetee mais doo gis dara lu ko métier mi jox est bokkoo ci ñooñu. waaw métier mi moom boo ci foowee mën na laa bañ a jox dara. Mm-hmm. waaye boo ci foowul tamit. Mm-hmm. mën nga cee nekk nit koo xam ne ko avancé ngay doom. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ñun moom sincèrement parler moom danoo jagal mais toroxalu nu moom. Ah, macha allah macha allah ah, parce que tamit métier bu ñu ko dee jàng tamit da hmm. pour tamit nga gis ci sa bopp bu baax a baax a baax kon ci métier mi ci nga takk soxna. waaw ci laa takk soxna wax dëgg yàlla. ah macha moom. macha allah macha allah kon balaa yàgg dara rek yàlla nañ ci tënkante incha allah. Ah, di wax ni nag wax dëgg fa la kontaan nañ lool jabel. ci wax dëgg fa la nangul gi nangul invitation bi ñu nekk ñëw fii ku ne xam na ne liggéey bi bari na hmm. jot amul hmm. waaye nag bi ma la waxee rek nga ñëw wax dëgg fa la nga dama ñëwul oustaz li nga ci war a def yëpp amul benn problème danañ ko jàllale jàll bu am solo kon nag loolu nangul googu nga tamit ñun la koy sant bu baax léegi nag dañ lay laaj rek sa kàddu gu mujj waaw sama kàddu gu mujj mooy di sant rek waaw ndax yéen tamit lii ngeen def tamit bu leen neexoon ngeen dem defi ko feneen ndax euh, lii ñun ngeen koy defal mhm. ndax tey dëkk ñu seeni micro di ñu laaj li ñu naqari ak li ñu neex mhm. lool tamit yéen a ngi jàppale askan bi bu baax baax. Mhm. ñu leen di ñaanal yàlla na affaire bi dem ba doom ay télé télé waxuma benn sax waaye ay télé télé. ñu leen di dégg fépp. amiin wax dëgg yàlla rafetlu nañ bu baax baax tamit seen teew ci ñun. Mhm. waaw kàddu gu mujj mooy di sant ñëpp rek. Mhm. ak tamit boo amee hommage boo xam boo xam tamit da nga ko mën a jàllale. waaw. hommage bi moom mooy. comme ñun ndaw ñi nii rek. ñu xam ne liggéey moom moo am solo. ñu nekk ci. waaw parce que tamit jamono moom. Mhm. ci loo ne rek yàlla suñu borom dimbali la ci. Mhm. waaw di sant bu baax ñi ma nekkal ñëpp tamit loolu moom du ma taayal mukk di ko wax. Mhm. waaw ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn boo tuddee Maodo rek. moom da ngay tudd ñi ci des ñëpp. Mhm. waaw parce que garas bi moom. Mhm. daanaka moom ñëpp benn la. macha du du xiiroo si si si dara. waaw mhm. moom ay ay yenn yenn nit lañ yoo xam ne rek danoo nekk ensemble nii déggoo. waaw ñu leen di sant bu baax tamit di leen sant bu baax. ah macha allah macha allah baax baax ci li ngeen di def. kon nag Jabel danga may tooy topp rek ñu di dem ci ki nga xam ne sànq ba léegi maa ngi ko gis muy xoos seex bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay di leen ziar. di sant Serigne Touba bu baax a baax. sant suñ ñaari waajur sant suñ mbokk taalibe yëpp di ñaanal Seex Muntaxa mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ah allah ku gis ki nag xam ne ndaw la waaye en même temps it ku fonk liggéeyam la ndax sànq ba léegi jabel ñu ngi koy gis muy xoos rek ak di raxas rek lan mooy sa taxawaay ci fii waaw fii moom man comme ni nga ko waxee rek ndaw laa ñu teg ma ci ay loxo waaw ma nekk Sëñ Saaliw mee ngeen jóge waaw mu yor ma ci yoren wu rafet ndax lii laa xam man ba ma fi dikkee ba tey mosumaa jaar feneen peinture bi ci laa nekk su ma xëyee ñu ne ma defal lii defal li yooyu si laa nekk xaw ma leneen wax dëgg yàlla. mais est-ce que peinture bi yow sa bopp. waaw maa ngi sant yàlla bu baax. ndax bi ma jógee daara ba tey si laa nekk. te bépp soxla boo xam ne am naa ko rek ci laa koy faj. waaw ah, macha allah boo ñu doon defal benn témoignage rek ci sëñ Saliou. waaw sëñ Saliou moom jëmm la joo xam ne amuñu fayam. ndax yàlla def na nit ku am yërmande la comme turandoom rek. ku am yëg-yëg la ci nit du ñàkkal dara fayda waaw. ndax man ba nekkee ba tey yàlla dafa dogal sama patron la mais dano kersa dafa dox suñu diggante sax ndax nekkin wum nekkin ak man waaw wax dëgg yàlla amuñu fayam daal. ah macha allah macha allah euh, waxtu yi moo xaw a xat sax waaye kon dañ koy yaatal bu baax a baax a baax a baax ndax ku ne xam na ne ñi fi nekk ñëpp nag ñoo bëgg jël kàddu ngir bëgg a seede ci moom ndax muy ndaw loo xam ne nag am jom nangoo liggéey nekk fii nag ci tabla Tivaouane wax dëgg fa la di peintre côté oto bu siiw ñëpp xam ko kon nag dañuy wax ni rek état bi ñu ngi leen di ñaan ndaw ñu mel ni nañ leen jàppale bu baax baax a baax même sax bu ñu leen dee yëkkati nañ leen wutal fu baax foo xam ne dana fa mën a dem mais tamit koo xam ne dafa yor soxna yor njaboot yor ay waajur ñu ko di ko yaakaar nga xëy rek yëkkati ko fenn sànni ko ca àll ba du xam fu mu jëm ay client ba xam fa nan lay def bay fa loolu nag nekk doon lu met loolu nag ñu ngi la koy jotal yow président boo seetul boo ko seetaanul it ñi nga dendal am nañu ko ci seetaan daan la ko woon bu baax a baax a baax jabel nag du ñu def lu sant la def gërëm la tamit bu baax a baax a baax yow mi nga xam ne yaa féetewoon ci cameraman bi wax dëgg fa la temps bi jeex na bu waaye nga ne ma oustaz doxalal bu baax a baax a baax ndax waxtaan am solo waaye nag jabel ku gis ni ma def nag jabel da ngay xam ni Amina Sob moom moo fi jaar Amina Sob nag ñëpp ko xam mu ngi nekk fii ci table Tivaouane ci en face Nestlé bala ngaa egg ci raay bi rek ci marché samedi boo ko jubalee tuuti bala ngaa egg ci raay bi rek da nga gis Amina Sop moom mooy jàkkaarloog Nestlé numéro téléphone am nag mi ngi nii 78 131. 74 40 78 131 74 40 77 mooy WhatsApp bi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a seq moom waxtaan bëgg a def seen commande ci WhatsApp bi jël leen numéro bi 77 121 05 01 77 121 05 01 mu mel ne nag damaa sedd damaa liw ak di bokkatu jeex na ci réew mi ndax kan Amina Sop mi ngi nekk en face Nestlé ci marché samedi bala ngaa ji graay bi rek foofu la Amina nekk kon jabel nag duñu def lu nag sant bu baax a baax ñun si fekk si woon muy sëñ Saliou ak équipe bam waaye nag di nuyu bu baax nag jabal da nga ma sànni a a a Jabaate ak Moussa Jabaate noonu laay nuyoo nag sunu sama ñëpp rek di nuyu may mi ci Touba Assane ak Ousseynou sunu papa sunu xarit Mbaye mm, Thiam Diop ñu koy ziar baax di ko joxaat wàccuwaay waaye papa tin duñ ko fàtte benn yoon Sam Ñang suñ papa Bara Samb ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax baax waaye nag duñu fàtte benn yoon nag maam Cheikh Ngunja nga xam ne mooy doomi Baay Jili Mbay nekk foofu ca Louga dafay suivre suñ émission yi bu a a baax waaye waa Touba a lim ñëpp waaye ñoom it ñu ngi suivre bu baax a baax a baax ma ci tuddee bàjjan maane rek tudd ca maam Jaara tudd naa ñëpp di leen ziare bu baax di leen jox seen wàccuwaay mu mel nag seen site bii nag nekk Alhamdoulilah TV ñoo leen loon émission bu am solo boobu muy émission seen métier ñu ko doon amale tey fii nii ci table teewoon di leen wax ni rek beneen numéro ci seen beneen métier wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Alhamdoulilah TV, la chaîne des valeurs et des vertus.